maa ngi dégg bu baax. allo. oui maa ngi dégg bu baax a baax. allo allo. allo oui. allo oui maa ngi waaw yaa may dégg. Ibrahima de li ñuy indi actualité xam naa ne intéressé na ko torop. allo waaye déggante benn neexut. allo allo oui. allo. allo oui waaw maa lay dégg man maa lay dégg bu. ah yaa may dégg maa la déggul bu baax Ibrahima. ah kon ma de. waaw wax maa ngi lay dégg instant ah. bi uh-huh. Sénégal laa bëggoon artu tuuti. en uh-huh. tant que sénégalais. waaw bu juddoo Sénégal yaroo Sénégal. Sénégal dañuy def ku ñëw ñu tàllal le micro. Uh-huh. Euh, si sa moom du sénégalais c'est Gambien. biir Sénégal ñu commencé ko faa wutal buzz. di jox rajo yi muy wax lu ko neex. ku yaradiku la. def na ko mbir na bàyyi. Uh-huh. dugg ci biir domaine waa Medina Baye fa mu bokk ñu daal di koy iri ay góor ñu mel ni moom dóor ko may bëgg dee. jooy uh-huh. ñu teg ci bët mu jóg foofu dem attaqué waat waa Kër Sëñ Béthio yi. Uh-huh. jugaat foofu di attaqué Sénégalais yi Sénégalais nag ñoo commencé bëgg a ñàkk fayda ba ku ñëw moom leen. bu bu bu def bu waxoon waxi dof. a waxi reewaande ñu kar ko def ko comme ni ko waa Medina Baye defoon du mujj yàpp amul fenn bu tooñee da nga koy njëkk a porter bu bu yoon fajul boppam bu yoon fajul yow nga fajal sa bopp du mujj fenn parce que bu bu boo ko dóoree mu dem ci yoon fekk fa sa plainte. Mhm. fenn laa wax Sénégalais nag ñoo ko bàyyi ci lu mu. que yenn yi waxu yabaate la waxi reewaande la. Ah. te boo xamante ni de rien du tout dugg bii Sénégal di am lu mu fay wax wala lu mu fay lu mu fay imposer wala lu mu fay proposer loolu loolu yabaate la sénégalais yi ñoo ñàkk fayda ak télé sénégalais ak rajo sénégalais ak chaîne YouTube yu bëri yi nga xamante ni kuñ jekku tàllal micro. Mm-hmm. kuñ jekku tàll la micro. Uh-huh. dégg nga bu ma jógee foofu nag dama bëgg a wax tuuti ci affaire Ousmane Sonko. Uh-huh. ak Adji Sarr Sénégal pays am la pays bu Serigne Touba dëkk. Uh-huh. pays bu Maam Baye Niass dëkk. pays bu Maam Maodo Malick dëkk. pays boo xamante nii dëkk yu sell la am Sénégal bu ñu yàlla bu ñu xeebee ren jaamu yàlla kon ñu xam ne yàlla kenn jaamootu ko. jàkka yaa nga fa. julli ñu ngi woor ñu ngi def asaka ñu ngi dimbalante ñu ngi def social te lii mooy jaamu yàlla. dégg nga. Mhm. léegi nag bu bu Ousmane Sonko nekkee foofu ab benn jiw tuumaal ko di ko jiw yoo xam ne amul fenn. Mhm. état teg bu Macky Sall taxaw ci télé bi mu ne man am na ki problème yoo xam ne bu amee fi man mun naa cee dëgg sama tànk ba du jàll. Mhm. léegi nag mu gis jigéen juy tuumaal góor. boo xam ne man de ñeme naa ko kitaabu ci alxuraanu karim ne Adji Sarr la muy wax amul dëgg ñu dem ba quatorze morts am ci deux mille vingt et un quatorze personnes bakkanu doomu aadama tuuru ci ñu dem yomal xeyaam lañu woon seen réew loolu bu demee ba yow toll fii na ko teg suuf te xam ne Macky Sall bu yëngalaatee wax waxi Ousmane Sonko parce que Seydina Mohamed dana yóbbuwaat ay bakkan loolu moom na ko leer nañ nguuram jeex nul ne peut faire plus de deux lii moo nekk ci constitution Sénégal ba toll fii nanu jéem a échanger changer mu dem jox keneen réew bu fekkee nag ku sàcc sunu xaalisu réew la comme ay rakkam ak i maam sàcc sunuy alalu réew dañ leen teg ci yoon atte leen teg leen ci yoon teg leen ci kaso bi mu jeex dégg nga mm-hmm. te loolu lay bañ nag dina am mu neex dana am mu naqay dana am keneen ku fi munti toog lu mu ci yoon dañ lay attaqué waat sànni lay xeer ba jëlee lu fi fii deux mandats moo fi am Abdoulaye Wade moom la def dem mm-hmm. moom moom lay def te day dem bu soobee yàlla su mu ko jaral nag jaral lañu ko ñun Sénégalais yi ndox mi ñuy dee ci géej gi mm-hmm. ñun ñi nga xamante ni ñu ñu ñoo jaar ci ndox mi ndax amuñu armée Sénégal da ngay dem armée Sénégal am am ya amoo yaakaar nga dem armée ñu doon fay onze cent dix man j'ai j'ai reçu j'ai reçu onze mille quatre cent dix pendant deux pendant deux ans onze mille quatre cent dix mënul yor sax tout tax da yor néeg léegi vingt quatre mille francs la Macky Sall di fay militaire yi ngay boo demee deux ans yu njëkk yi vingt quatre mille du dara Sénégal amul dara moo tax ñuy jaar ci ndox mi man ci géej gi laa jaar bi dugg fii France tey duggatuma dara sama réew ah. parce que jeune la défendre naa sama patrie pendant deux ans ma solal sama réew tamit dem liggéeyal leen geeral leen dugg Casamance. dem macha allah Sénégal la fa nekk nag moom waaw. macha allah dama ne président Macky Sall mandaam jeexee na dem ci jàmm ak salaam. te bu yëngalee mbirum Ousmane Sonko bii barki Seydina Mohamed dana yóbbuwaat ay bakkan man de je suis prêt pour ma jaay ko sama bakkan man te bis bu ko indiwaatee jaral na ma dëggee fii bii ñëw Sénégal xeex si ko te damay xeex ba bakkan bes si wax dama matir laa demee yàlla daf may jéggal yóbbu ma àjjana ndax damaa xeex loo xamante ne ni jihaad deux mm-hmm. mandats am dañ ko ñoo ko ñoo ko faloon deux mandats am bu jeexee ne man moom laa voté loon uh-huh. moom laa voté loon te doyatuma parce que gis nga dafa tàlli amul sens dafa état amul sens ne sa ndaw réew liggéey France fii da ngay feebar nga dem faju uh-huh. gratuitement man bi may ñëw bu ñu kaw ndax laa fi indi damaa dem lu xoosal ma lam sa huit weex taw uh-huh. fay ma benn dërëm <laughs> boo feebar nga faju réew da ngay da ngay da ngay xiif nga lekk réew da ngay mbar naan naan lii nañ soxla ci moom bu demee bu mënul ñoo defal lii na dem amal ñu ñun soxla wu ñu ay ah. soxla wu ñu ay autoroute soxla wu ñu ay auto pont xam nañu soxla bëgg a lekk lekk bëgg naan naan lii lañ soxla feebar faju bu fekkee ne moom mënul defal feebar faju man mm. benn jour toog naa ci camp militaire bi barki Seydina Mohamed ah. ab nit yenu doomam jabaram andi ko ci camp bi mu ëmb mu ñëw ñu bindal ko ordonnance boo xam ne quatre-vingt mille francs la waaye génn toog ci buntu boppam ma ne ko sëñ bi lan la mu ne ma wallaahi sama jabar ji xam naa day faatu ndax quatre-vingt mille francs yii nii li ma bindal ordonnance aw ma ko boobu maa ngi yor vingt mille francs sama poche ma génn jox ko su ko dama yor liggéenti bi muy dem di liggéenti gi di ñëw fekk na jabaram génn àdduna oh. faatu yóbbaale doomam te loolu est-ce que réew la France fii boo ñëwee rek laa ñëw man ñëw naa fii feebar aw ma ma dara ma ñëw rek feebar dem pour faj ñu ne ma ana sa passeport yore ma ma génn ñu ñu ñu bañ maa faj ma génn ba ci buntu hôpital ma daanu fa sapeur pompier moo ñëw jël ma dama ci hôpital bi ñu teg ma ci seen dal faj ma defal ma li ma soxla yëpp mm-hmm. après ñu bàyyi ma dem lii mooy réew réew dañ koy defar ci defar bu baax nit wala xadd karam naa ban ne aadama la yàlla wax lépp lu sàkk doomu aadama moo ko ci gënal mm-hmm. kon bakkanu doomu aadama di faatu ci yoo xamante ni amul benn njëriñ Macky Sall ñun nag ñu ngi koy lancé appel ne ko ñun sénégalais yi on est prêt pour fu lu lu mu gas ñu ñeer ko lu mu sulli ñu sulli ko barki Seydina Mohamed lu mu ko jaral jaral nañu ko ñu teg la bàyyi Ousmane Sonko bu waree nekk président mu doon ko président yàllaa koy takk mhm. moom yàllaa ko def nangul nañ ko keneen ñëw li laa amoon kàddu am na solo trop mhm. mënu ko ñu ngi koy jaajëfal noonu waa diaspora bi xam nga ñoom suñuy waay lañ aussi waaw ñoom ñoom dañuy topp rek foog foog ñu ñuy ñi leen ci xajal même bu fekkee bëggoon lañu daaneel sax xam nga mais xam naa dañuy jëlaat keneen tamit allo salaamaaleykum maaleykum salaam allo oui na ngeen def ñuy sant bu baax wax ñun de dañuy ziar rek delloo ziar bu baax compte di bégg seen seen seen laaj bu baax a baax baax a baax xam naa man sama wax barayut parce que euh, non sens yi gars yi yëpp ay non sens la amoon nañ ma benn njam njëriñ daal man daal yéen laay waxal uh-huh. euh, xaw ma dara nag mais yàlla moo def yéen daf da ngeen am lu ngeen am da ngeen seen bidoo dafa taxaw uh-huh. te ni seen bidoo taxawee bu ngeen waxee dëgg rek uh-huh. bu ngeen jàpp ci dëgg rek wallahi al azim kenn du leen raw àdduna dëgg la te li ma lay jox nii seen chiffre trois cent treize seen digito bu ak seen numéro téléphone ñoo bokki benn chiffre ñoom ñëpp ñoo bokk benn chiffre si si si si si alxuraan. dëgg la dëkk bu kanam. wallaahi kanam ngeen jëm ngeen ba ci bare jaaxaan rek. wax dëgg rek dina wax dëgg rek. jërëjëf. loolu toog loolu donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla. yàlla nañu yàlla fu ngeen doon tënd mu gën si yéen. amiin. képp ku leen faxee lu bon nag yàlla mm-hmm. ko sëriñ bu ngeen dem. sa mm-hmm.